actualité des sports euh, sëñ Cheikh ak match bi démb euh, finalement qu'est-ce qui n'a pas marché gis nañ ni match nul la mujjee euh, Sadio ci boppam am na lu mu wax mu ñu xoolaat système de jeu bi et puis il y a le sélectionneur qui se dit tout de même satisfait mm. même bu fekkente ni quand même match bi dafa nul et puis poule bi bi ñu nekk Soudan du Sud moom moo nekk ci kaw non n'est-ce pas mm. oh, waaye Soudan moom moo jiitu qu'est-ce qui n'a pas marché je pense que dans le foot comme li ñuy wax les erreurs se payent cash. Euh, Absolument. quand tu ne marques pas tu te fais punir. parce que je pense que tournant euh, match bi démb euh, c'était l'occasion de Nicolas Jackson. bi nga mm. xamee ni dafa dem am balle de break euh, benn contre-attaque boo xamee ni mm. c'était un but tout fait. Mm. Euh, je pense que mooy image yi ni ñuy gis ni il manque cette occasion te bi. c'était la balle du 2-0 su ko dugaloon euh, certainement euh, Sénégal day gagné match bi parce que tout juste après action bi on s'est fait punir mm. euh, ñu égaliser 2-2 qu'est-ce qui n'a pas marché ñu bari ñu ngi wax ci classement bi normal on n'est pas des techniciens peut-être mais ay observateurs lañ souvent dañuy gis dañuy xool dañuy gis mm. te yàgg nañ bien Aliou yàgg na commencé di jouer système bi mais mosu ko jox satisfaction boo xamee ni war na tax mu ci euh, entêté wu di ko continuer du demee Sénégal 4-3-3 lañ ko xamee woon. Mhm. Euh, mais démb il a encore ramené son 5-3-2 avec deux pistons yoo xamee ni aussi euh, xamewuñu leen woon. rôle boobu ci équipe nationale mu Ismaïla ak Habib Diarra mi nga xamee ni euh, ñoom ñoo commencé démb. Mm. Euh, premier mi-temps bi xawoon na tane mais deuxième mi bi on a vu quand même qu'ils étaient trop fatigués mais euh, loolu yëpp. c'est le football day faral di am on a joué contre une grande équipe on n'a pas su gagner alors qu'on avait largement les moyens de le faire mais man li ma gën a tiital parce que de le dire c'est la sortie de Sadio Mané quand même euh, Sadio Mané c'est le patron de cette équipe euh, su ñëwee ba génn euh, ci médias yi jéewul sax mi ngi woon ci tribune yi mhm. bay wax di critiquer ouvertement choix euh, tactique choix tactique yi nga xamee ne entraîneur am sélectionneur national bi moom moo ko def mm. là je pense que y a y a problème te connaissant Aliou mën na indi ay jafe-jafe ci euh, vestiaire yi parce que moom aussi c'est un gars qui ne se laisse pas faire même si sa Mané a le droit a gagné le droit quand même euh, de dire ce qu'il pense de cette équipe nationale du Sénégal est-ce que waroon na ko def devant les micros ou pas est-ce que waru ko woon def ci vestiaire yi est-ce que warul woon xaar peut-être ba match Mauritanie bi jeex ñu wax ko bon mais su demee ba ni système de jeu bi doxul équipe nationale yàgg nañ ko di def doxul ko dañ ko war a changer. Hmm. je me dis que c'est à Aliou de d'en tirer les conséquences parce que les entraîneurs d'habitude ils n'aiment pas ça. Hmm. bëgguñu joueur di génn di di di wax di di critiquer lu ñuy def parce que là il le met dans la difficulté su ñëwee prochain match s'il rectifie des gens vont dire que c'est Sadio Mané moom moo ko wax hmm. te entraîneurs yi dañoo dëgër bopp dañoo dëgër bopp rawatina Aliou Cissé. souvent lui, il meurt, ah, il, il, il, là, là, il meurt avec ses idées, euh, souvent. Léegi nag comment il va réagir par rapport à ça mm. est-ce qu'il va continuer à mourir euh, comme ni nga ko waxee avec ses idées ou bien est-ce qu'il va rectifier pour topp ci euh, Sadio Mané euh, li mu ko wax li mu mm. critiqué je pense que euh, on verra à l'avenir lu muy nan nan lay réagir mais je pense que Sadio aurait dû en parler en tête à tête avec l'entraîneur puisque c'est l'un des capitaines de cette équipe nationale du Sénégal au lieu mu koy wax ci kii bi euh, fajul daal comme Euh, dañ naan dafa am jafe-jafe tamit. Euh, mm. ci système de jeu bi. mu mel ni est ñu bëri li ñuy wax tamit euh, naan moom dafa xaw a dëgër boobu coach bi. Mm-hmm. est-ce que du loolu tamit est-ce que yaa ngi ko ruumanaat ci suuf. mu def ko mu def ko mu génn wax. su sur oreille mais loolu je pense que war na am fu aussi fu mu ko jooyee fu mu ko jooyee jee ah. parce que ñoom aussi am na am nañ ay kilifa. équipe nationale bu Sénégal la si à pas que Aliou Cissé une organisation derrière mais su ñëwee wax ko comme ça. en plus c'est pas la première fois am na benn match boo xamee ni contre euh, Eswatini bi mu ñu dóoree à Dakar. Mm. à la fin du match aussi on avait entendu Sadio Mané aussi s'épancher sur Aliou Cissé surtout que temps yooyu on disait que les relations entre les deux n'étaient pas au beau fixe euh, mais après. gis nañ ni mujj nañu jibo mm. ba Sénégal gagné Coupe d'Afrique ci diggante bi mais là là avec cette déclaration alors qu'on parle d'Aliou Cissé en fin de cycle en équipe nationale coow li ñu bari naan fi mu nekk nii euh, war na état bam équipe nationale jeex na mm. dafa war a dem mu def déclaration bu mel nii je pense que euh, c'est l'enfoncé hmm, euh, Mortala Aliou Cissé euh, peut-être finalement centième match am bi hmm. demeewul xaj na ni mu bëggee woon mais est-ce que suñu équipe bi tamit elle a été prévisible ni ko coach bu RDC waxee woon d'autant plus que ñu ngi waajal suñu beneen match bi avec les Morabitoun dimanche prochain à Nouakchott inchallah pour man le combat tactique bi kii moo ko gagné ah Sébastien Desabre moom moo ko gagné parce que changement yi mu def moom moo ko jural résultat bi parce que changement bi mënoon nañu jural sax defee temps mm. je pense bu gars yi appliqué wul woon appliqué woon parce que euh, ki dugal bi bi Mayele mm. mi ngi joué pyramide bu nekk Égypte mais euh, ba mu duggee da ngay sentir que ni voilà il nous a causé énormément de de de de, de problèmes mais fekk na boobu sunu axe bi sonn nañu lott nañu te 19 heures lañ doon joué te ma fàttali ni contre Mauritanie 16 heures la ñu nar a joué match bi te foofu moo gën a tàng fuuf donc pour man adaptation bi hmm. c'est important joueurs yi bàyyi ci xel ñu joué benn système boo xam ni da leen di faciliter épanouissement parce que système bi ñuy football nii ak trois défenseurs da leen di sonal démb boo seetee ñaxate nga gis sa Kalidou Koulibaly mais à la fin du match ils étaient complètement cuits mënatuñu woon daw sax donc pour man euh, loolu il faut ñu bàyyi ci xel mais centième bi comme ni nga ko waxee naata c'est gâché c'est vrai que boo seetee en terme de chiffres bi mooy le vingt deuxième match nul de Aliou Cissé à la tête des Lions depuis ba mu jëlee Lions yi en deux mille quinze bii mooy vingt deuxième match nul. bu Aliou Cissé ñu bëri nag nee nañu tey mooy centième nul. Euh, parce que voilà tey journaux yi am na ñu ci bëri yu ciy abusé wax ni comme le quotidien daal ni le centième nul de Cissé euh, l'Obs daal ni le sang parasité yooyu yëpp ay titres la c'est pour montrer que ni événement wu Aliou Cissé bi démb mm. moom il s'attendait joueurs yi jox ko benn cadeau royal euh, voilà parce que pour fêter un peu sang yi mu toog ci banc bi mais malheureusement ça n'a pas pu se faire mm. mais bu Jackson comme ni ko Cheikh Tidiane waxee dugaloon bii boobu tey beneen match la ñuy wax euh, parce que on serait à deux à zéro dina daf break te ñële on va leur couper les jambes mais malheureusement Jackson n'a pas eu de réussite s'il n'a pas fait un mauvais match à l'image de sa saison à <laughs> c'est que moment bi nit ñi li ñuy retenir mooy occasion bi man nga manqué mais sur notre but par exemple c'est Jackson qui fait l'effort euh, de fixer au premier péto et de centrer euh, Ismaïla Sarr ñëw dugal mm. mais euh, amuloon réussite mais quand même action yu mel nii il mm. faut être tueur da ngay euh, da ngay rey match bi parce que bu ko dugaloon rek tey jii coow lii yëpp du am ba euh, coow li quand même ça perdurer parce que euh, Sadio Mané c'est pas n'importe qui dans l'équipe yu mel ni vestiaire lañ koy wax. Hmm. généralement ci biir vestiaire yi dañuy toog ñu wax suñuy problème équipe parfois sax joueurs yi am na benn euh, année ñoom Benzema Ramos les cadres du Real ñoo toog wax ak José Mourinho. ni ko yow système bi ngay joué ñun d'accord ñu ci mais José Mourinho dafa mujjee changé da leen a ñëw fekk si parce que tout simplement les joueurs ñoom ñoo nekk ci terrain bi te ñoom ñoo xam seen épanouissement ci nan la mën a demee pour man Sadio. Hmm. fi mu ko waxee bu la ko warul waxee. mais da koo war a wax parce que quand ñoom dañu am baat ci vestiaire yi. mais ba mu nekkee un débat public je trouve que quand même euh, dina causer benn coow ci vestiaire yi. Hmm. mais yooyu yëpp. nañ ko teg de côté ñu xool ni on a fi on est fi mu ne nii deuxième avec cinq points Soudan mi nga xam ni euh, dafa dem Nouakchott dóor Mauritanie euh, mm. deux 0 mm. moom moo jiitu avec euh, sept points te nag ñii ñu resevoir oon muy RDC fi mu ne nii quatre points la ñu am te Togo la ñuy recevoir ci seen dëkk bu ñu recevoir Togo dóor ko ñi ngi ak sept points donc ñun bu ñu amul résultat RDC dañuy romb te bu ñu rombee je pense euh, voilà ça pour man nañu jéem a teg coow li yëpp ba régler sunu match bi comme dañuy dem. Euh, mm-hmm. comme euh, jege na le neuf la. Mm-hmm. donc déjà ñu jéem a seet nuñ koy régler. ci mm-hmm. sa kàddu yaa ngi wax léegi ni nañ sóor match bi di ñëw parce que dafay tàng ñu xoolaat. système est am nga yaakaar ni dina am soppeeku vu que coach bi moom ci boppam. nee na amul lu ko metti maanaam ni mu demee nii neex na. non yu mel ni nul bu amee. Mm. Euh, résultat bi ni mu demee. Euh, nul bu amee euh, forcément entraîneur bi day tirer les les leçons c' est vrai que boo seetee début match bi ñun suñu première période. Mm. ku ci mel ni Ismaïla Sarr il a été sauvé par le but la Sarr on s'attendait à ce qu'il porte l' équipe nekk le euh, l' élément déclencheur. Mm. mais on a plus vu. Habib Diarra nga xam ni c'est sa première muy football Sénégal c'est la première fois muy football stade de Abdoulaye mu ngi soog a ñëw sax pour man football Sénégal c'est la première fois. Mm. Habib Diarra nga xam ni quand même euh, il a montré quand voilà sa disponibilité am na fa benn euh, reste solitaire ret solitaire bu mu def mais finalement da koo dóor góor bi jàpp ko pour man. Mm. il a montré de une très bonne qualité. Mm. malheureusement. dafa rës ci deuxième mi bi parce que tout simplement il était à bout. Mm. mais je pense yooyu yëpp neexul ci suba euh, on l'a remarqué alors ci match bi dafa mel ni liñ ñu ci retenir mooy absence su Sadio Mané déjà ci équipe bi. Mm-hmm. waaye tamit système de jeu bi comme moom ci boppam ni mu ko retenir euh, ni mu ko waxee ak leneen lañ la ñu jàpp ni moom moo doxul ci match bi. waaw xam nga li li li Sadio wax mooy li mooy lu lu nga xamante ni c'est le sentiment le mieux partagé moi je trouve que Sadio c'est un leader hein il a le droit de critiquer et wax ci li nga xam ne tey mooy lecture bu mu am ci match bi ci mais courante bi euh, zone mixte il la donné son opinion sur le système de jeu donc alerte boobu man je pense que lu baax la parce que aussi Aliou Cissé pour dara nekku ci dara nekku ci Aliou Cissé dafa dëgër bopp dafa dëgër bopp te nit bu fekkee da nga yor équipe da ngay déglu nit ñi li ñu lay wax. 3 hmm. cinq 2 bi baaxul ci ñun. cest à xam nga réew mu ne da nga am tradition de jeu. dafa am lu nga xam ne tey mooy mandargaal ñun euh, euh, sénégalais naka la ñuy fubale ñun dañuy am ñeenti défenseurs yu mat ci ginnaaw yoru góor yor euh, milieu terrain bu la neexee nga def fa trois yaa xam loo fay teg yor attaque ñun loolu loolu mooy suñu tradition de jeu bu fekkee ni ca jamonoy maam la ñun suñuy jamono boobu 4-2-4 moo xewoon loolu lañ doon fubal. mais Sénégal ci performance yu gën a baax. Hmm. ak prestation yu gën a baax 4-3-3 moom la ñu moom mooy suñu système bi nga xam ne moom moo ñu gën a adapté mais 3-5-2 bi depuis que Aliou di ko di ko di ko di ko di ko expérimenté euh, daf ñuy indil ay jafe-jafe. parce que ñetti centraux maanaam ñetti défenseur central ngay jël teg leen ci ginnaaw. Hmm. léegi ki nga xam ne tey moom mooy Habib Diarra bi nga doon wax. il a fait un très grand match. Hmm. parce que moom. mooy piston piston droit lañ koy tuddee mooy yéeg di wàcc di yéeg di wàcc il a avalé tellement d'espace que benn moment il était carbonisé il a même demandé à être changé beneen bi nga xam ne tey moom laay remarqué ci euh, Aliou Cissé mais euh, Idrissa Gana Gueye était le premier le meilleur élément du milieu terrain mm. il a ratissé beaucoup de ballons gaañuwul fatigué nga génne ko tu dérègles le milieu de terrain je n'ai rien contre Pathé Ciss Pathé bi mu duggee il n'a presque pas apporté grand chose parce que c'est un problème de de rythme et de compétition c'est un garçon bu nga xam ni s'il est au summum de sa forme il il, a un bon abattage au milieu terrain mm. mais démb bu mu duggee da ngay xam ni kii dafa diis mënul apporter lu lu lu lu bëri et ça nous a créé beaucoup de problèmes maintenant Jackson Jackson li mu raté démb bu mu jaaxal kenn hmm. c'est-à-dire il maanaam li muy def club moom la indi nii équipe nationale xam nga ñaata occasion la am ci saison bi. Hmm. dix 78 occasion de but. ñaata la ci man 13 la ci dugal. ratio bi ratio occasion euh, euh, yi mu am net de but ak li mu dugal boo ko defee da xam ni c'est c'est c'est treize en deçà de la moyenne soixante dix huit occasion treize buts marqués. ak soixante cinq manqués. voilà mais nag joueur buy am occasion moo gën bañ ko am. waaw moom mi koy am. am bi moom mooy de ne il a de très bonnes dispositions c'est un attaquant qui est très technique mais il n'est pas tueur et loolu moom moo loolu moom moo commencé manqué serial bi mu war a nekk mhm. moom la nekkul parce que cette occasion de but mhm. dans les toutes dernières minutes boo ko dugalee Sénégal pare na gagné na match mm. da nga yàlla tàccu la feccul mu tàccu Congo mu fecc c'est aussi simple que ça mm. maintenant il faudrait que euh, dans les matchs à ñu ñu ñu ñu def tout ba gagné il nous reste sept matchs il y à s'alarmer mm. juróom-ñaari match moom moo ci des ñu ngi war a dem Mauritanie nañu fexe gagné match boobu buñ ko gagné ci wàllu pointage dina am lu nga xamante ni. dina ko jur en regardant maintenant. Hmm. les matchs des autres mais en tout état de cause la prestation d'hier remet en cause les compétences de Aliou Cissé. Hmm. c'est-à-dire bu ñu ci bu ñu ci nekk di di layam layam yi man wax naa ko ba ñu ci ca Yamoussoukro waxaat naa ko tey. Aliou dafa egg ci fu nga xamante ni mooy point de non retour mënatuñoo indi lu bees. d'accord merci beaucoup merci El Hadj Malick euh, alors dañuy ñëw jàll ci beneen ponk muy un jour au Sénégal un jour dans Música